le président actuel itam man personnellement laa wax de waxuma la mission en tant que telle boo xam ne maa ngi yéen ak ko bokk waaye man personnellement qui est le guide de la révolution pacifique man à part entière mbiram dafa bokk ci sama mission ndax dégg ngeen la ma doon wax temps yee passé ni dafa am lu ma koy bañal loolu nag ma koy bañal bu fekkee dëgg la ci man dama koy topp étape par étape étape bu nekk la mu laaj la cay sama rôle sama digganteeg moom sama digganteeg ñëw ay ay collaborateur am ñi ma àndal di gouverner sama digganteeg maanaam rôle bi ma war a jouer daal personnellement man ci mbiram kooku man la concerné concerné wul mission mais dafa bokk man ci sama mission à part entière xam nga loolu leer na xaadi ku mu neex nag jéggeel nu la neex ay yonent jaar nañ fi di wax ñu leen di wedd gën gi mbindeef yabal nañ ay xale ñu koy sànni ay xeer ba xaañ ko ba deretam tuuru bu fekkente ni li nga nekk gëm nga ko bul xalaat lu négatif bul xalaat xeer wu dal ci sa bopp même bu daloon ci sa bopp sax nga ni nii gis deret neel jëre Sëriñ Tuuba jërëjëfe Sëriñ Tuuba

te fas yéene nag teg suñu tànk ci yoonu jub yoonu jub jub du dara lu dul saytu ak moytu saytu ak moytu mooy lan ñaari concept yooyu saytu ak moytu booy saytu li baax li am njariñ moom ngay saytu booy moytu li baaxul li amul njariñ moom ngay moytu loolu képp la